asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen nuyu di leen siyaare nu dikk ci xasiida muqaddamatul amdaax juróom-ñaareelu bunt bi xaaj bi ci mujj te tàmbalee yaazi biman alaaka abdan wa sayidan xalilan xabiban qaadali zikrahu qataa dafa wax ne samak muslu samak weeru maa ngi ko wékk ci yàlla mi nga xam ne moo la yëkkati kawel la ngay ab jaamam tam def la ngay sangum def yépp yàlla moom nga xam ne moola jël def la xarit def la ab soppe te it man wammatal na ma alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal lay wax ne ko yàlla mi la yëkkati ba nga kawee ñëpp def la ngay sangum ñëpp def la xarit def la soppe te man mii wa moo alxuraanam ci lu wóor yàlla moomu bu may muslu ak bu may làqu ci daraak lu mën a doon ci moom rek laa koy jëme mooy suma weeruwaay aataayaahu fi barrin wa bahrin taquduni ila shukrihi mustayaban nafsa wal maraa yàlla mi nga xam ne kat moo teeyal sama bakkan teeyal sama forukaay mayam yi may jox bu ma nee ci géej gi ak bu ma nee ci géej gi wamatal na ma may yu baree bari yoo xam ne yóbbu na ma ci ma di ko sant lim may jox daal moo xam ci géej gi la wala jër yi loolu yóbbee na ma ma jëm ci saxalal ko ak kent fu ma toll ajaibuhu fil barri wal bahri lii badat bi kaw nika maxduumi wali aw salan nafan yàlla wamatal na may njariñ yegsil na ci man ay njariñ fu njariñ nekk rekk daal dina koy ñoddi mu ñëw ci man doon gi ma doon sab liggéeykat nag yow yónnante bu tedd bi tax na sunu borom di ma wan kemaanam di ma wan ay kéemtaanam fu ma toll bu ma newee ci géej gi mi ngi may wan ay kéemtaanam bu ma newee ci jéer gi mu di ma wan ay kéemtaanam loolu lépp nag maa ngi ko amee ci doon gi ma doon sab liggéeykat sëriñ bi kuy delloo njukkal yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla da ko jox a jox ay may yu baree baree bari waaye saa su ne du ci gis boppam day gis ne moom ki mu doon liggéeyal moom moo toll noonu loo ko liggéeyal rek lu mu rëy sunu borom dana la fay fay gu kawe sa njort moo tax saa bu waxee ne yàlla defal na ma nangam wala yàlla jox na ma nangam rek danga dégg mu tudd yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko ci sa barke wala ci sa mbir walla ci liggéey bi mu lay liggéeyal la loolu jaare ulumi wa irfaani wa saayi zakiyatun liman bi ka li qaadat tawaalifa wa sharaa sama xam-xamu biir ak sama xam-xamu bitti ak samay jëf yépp rek def naa ko muy lu sell ma jëme ko ci yàlla mi nga xam ne moo ma wamatal ay taalif wamatal ma shariha ci sa barke yow yonante bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem eh, taalif yi wayoon sëriñ bi yàlla da ko ko baaxe jox ko taalif jox koy ndigal lum ci bëgg soppi soppi ko nam ko soobee wax na faneen ne yàlla ginnaaw bi nga ko joxee alquran ak xadiis jox na ko mboolem wirdu gaa yu baax yi muy wirdu si abdul qadir yi si al jilaani yi ak wirdu assaasali abul hasan ak wirdu si ahmad tijaani yi jox na ko wirdu yooyu ba noppi jox ko ndigal ci mu yorko ko na ko ñooña yore di ko joxe daal di cay boole nag xam-xam yu am njariñ ya mag ña taalifoon yëpp it yàlla joxaale ko ko lu mu ciy bëgg a soppi ba mu taalifaat ko yëpp daal di ci eh, am ndigal daal di jël sariya it jox ko moom eh, sunu borom dénk ko muy jëwri ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ana i bi maxwillahi an ni maxawtahu wa safa xayaati man li xayri kafa saraa mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa far sama coono ci farug yàlla gi yàlla mi nga xam ne lu mu bëgg mu dañ lu mu bëgg a dindi loola deñ ci faram googu nga sukkandiku ba faral ma sama coono yàlla nag moom sell lal na sama dund yàlla mi nga xam ne euh, képp ku ma nar a narmeel wala lépp luy ak narmeel bu jëm see ci man mu fekk ko ba mu jëm faneen yàlla moom moo sellal sama dund daa di tëjee bunt boobu allahuma ya haadi ya karimu ya salaamu ya shakuru salli wa sallim wa barik wa maulana muhammad almahdi almukarrami almusallami almashkur wa ala wa sahbi salatan wa salaaman wa fiha gayruhu abadan sunu borom yow mi aji gindee yow mi aji tedd jàmmal yow mi ab santkat maa ngi ñaan nga julli te sëlmal tabarkeel ci sunu sang sunu kilifa muhammad moom mi nga xam ne yaa ko gindi yaa ko teral yaa ko jàmmal yaa ko sant loolu yi nañ ko def ci mbooleem ay ñoñam ak ay saxaabaam julli googu nag ak sëlmal googu ak barke boobu na ca amee loo xam ne kuddul moom dana ko ci ñee kon foofu la tëjee juróom-ñaareelu bunt bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi